voilà mbokk yi ñu ngi ak euh, Modou Dia bu Yoff euh, Modou Dia maa ngi siyaar. delloo ñooy kontaan si yow. nan nga gisee combat bi weesu ci diggante Lac de Guiers Boy waaw lamba la bu nga xamante ne ñoom ñaar ñëpp euh, ku si nekk def na si li ko war bon ñu mat si niil comme ni ko adversaire bi joxe verdict bi. bon di leen encouragé rek di leen wax ne làmba noonu la da ngay ñëw indi lii mu demee neneen yàlla moo yor ay mbiram quoi. mais yow sóoroon nga bi. bon Euh, ñu bari xaaroon nañ ko quoi mais man bon dama yaakaaroon ne waroon nañoo def de plus que loolu quoi. Mm, kenn xamu ko. kenn xamu ko quoi parce que ku wax tamit ni xamoon naa ni nii lay demee da ngaa tenté rek parce que làmb moo waxul dëgg. yëpp la. waaw gis nga kenn xamu ko chaque jour gars yi mu juumloo nit. d'accord jaajëf sëñ Fallou ñoo fare. voilà mbokk yi ñu ngi ak euh, double moteur champion maa ngi siyaar. maa lay delloo siyaar nan nga gisee combat bi nga xamante ne si la ñu génn nul bi la jegeer booy ñaa amoo ci déception en tant non lamb yooyu nag awma ji benn session parce que xam naa ne lamb dafa métti képp kuy bëri ku nekk daan nga bëgg mais ndam ak defet yàllaa ko yor mooy xool ku ko neex mu jox ko ñaari mbër yëpp pare nañ. mais pour yow joxe nañu. ah joxe nañu. ah waaw ñoom ñaar ñëpp joxe nañu xëy na yàlla moo newoon ma combat bi si noonu lay jeexee rek waaw moo tax du mën a sori quoi. maa lay delloo ziar gaan Euh, nan nga gisee euh, d'une manière général euh, lamb ñi nga xamante ne si la ñu jógee diggante la de Guiers Boy Niang. Lac de Guiers Boy Niang ah bi ñu ngi ko doon séenu waroon naa gën a neex nool parce que doon nañ xaar ci ñoom leneen lu dul lii parce que ñoom ñaar mbëri xaar lañ bi gars yi gisee lii ci ñoom bettu ñu itam ñu bëri bettu leen daal. ay taxawkat lañu di xaar. ay taxawkat lañ di xaar te loolu doxalul lamb nañuy bëree lamb bu la fayee da ngaa war a bëri ci ay 5 minutes wala 10 minutes gën gaa bëri mu jeex ku ne dem waaw donc yow en tant que euh, mbër en tant que amateur am nga lu la naqari ci combat bi. bañ am lu ma naqari bëgguma sax ñu bëre juróomi minute ñoom ñaar danoo waroon a def rankum mu jeex. rankum mu jeex mais ñoom ñaar danoo laale mu dëgër ku mu dëgër sa côté nga sa bopp. nga bopp waaw te loolu du yoon dañ leen a fay ay millions millions yi leen di fay nañ ñu koy fay ñun xale yi ñuy bëree ci ñaari seconde ñett mu jeex. mu ne ngeen raak. waaw. Euh, combat Boy Niang Lac de Guiers nan nga ko gisee. waaw combat bu neex la mais xaaruñ ko woon foofu nag amateur yëpp xaaruñu woon foofu làmb ji mënoon naa gën a neex mais dafa mel ni des na daal initiative yi des na ndax booy ñaa bi mu tàntee tànte waat gisut lu mu xam daal téye boppam. la de guerre lim signature bëre si wu ko. bëre si ko mais kon am nga déception ci combat bi. am naa déception ci côté la de guerre parce que defe woon naa ni arbitre bu soufflé moo leen moo ko tàqaleeg booy ñaa. ndax signature am loolu la woote. waaye nag xëy na moo ma gën a xam boppam quoi mais nag li booy ñaa bëre bu ko la de guerre bëre woon mu gën a leer waaye nag nee nañ am na waaye man waruma koo atte. waaw lamb bu neex la woon. Euh, ndax Boy Niang dafa dugg géejoo duggaat géejoo dugg géejoo lu bari xamam la bëre la dëgg la dëgg gën a naqaree bëre sa mbër la dëgg ne ko fi ngay fi ngay bàyyi dugg géejoo yi mu ne ko cin fonde bi mu ne ko dang si naan mais soo xoolee cin fonde bi daa këpp te dëgg la cin cin bi këpp na saa nii quoi dañoo da jëb leer nañ lañ la tegee dafa leer nañ nan la ko daanee lan la ñaa sax xam nañ daanu na dañu waxtaan dëgg nag sport la quoi la sport la fo la mais nu mu daanoo nu mu daanoo teg na ans teg na Ah, yéen defoo leen taa d'identité. non non. Lac de Guiers ba léegi ci kaw waaw ba léegi loxo mbaa si kaw. mais Lac de Guiers ak Boy Niang mu nekk combat boo xam te gis dem nañu ba benn moment Boy xam nga xaw a tooke affaire yooyu Lac de Guiers waroon na taxaw moment boobu noonu. waaw soo xoolee Lac de Guiers li doon bëri wala moo bëri quoi moo tax Lac de Guiers li doon bëri wala VIP war na calculer calculer boobu. non du calculer sax Lac de Guiers lu mu moo bëri ak ñi mu bëri wala moo bëri Boy Niang dafa dugg géej dugal ak heure bu duggee su ko téyee day day wax di jëf. est-ce que waru ko woon daan jël bu rëy bu leer. non non non non soo xoolee dama ne Boy Niang dafa dugg géej waay di daan di jëf day wax bëri jëf di wax di jëf xam nga li mu bëri li laxas combat bi moo bëri. Lac de Guiers ni mu bëree nii la waroon bëree. nii rek nii la waroon bëree. yow kontaan nga ci combat non Lac de Guiers ñëpp xam ne moom ni lay bëree. mais yow kontaan nga ci combat bu baax a baax. waaw man dafa dafa génn si géej ma ne ko li nga bëree tey mosoo ko bëri saatu na. Lac de Guiers ni lay bëree soo nee Modou Lo ñu ne Modou Lo nga ne saay saay la soo nee Ama nga ndaam jom fit boo nee guy gi nga dafa xamal ma wax boo nee Sa Thiès dafa am jom fit nga ni Balla Gaye dafa am fit dañu wax dañu wax dëgg mais boo ñaa la dëgg ni bëree même boo ñaa tamit noonu lay bëree moom boo ñaa day bëgg sax moom moo xale moo dàq bëree loolu la ñu wax moo dàq bëree moo moo moom moom lamb jël na moom dañ kaa yàpp yàpp la lamb loolu dañu bëree mën am ndam ñun am ndam alors euh, combat bi nga xamante ne dox na ci la de Guiers 2 ak Boy Niang nan nga ko dundee. waaw man nag seetaanu ko dama génnoon moo tax. mais jot ngaa seetaan tuuti ci internet bi ak yooyu. waaw internet nag suivre ma woon la parce que. combat bi seetaan nga ko après booy. non ba léegi seetaan parce waaw waaye ni ma ko doon déggee rajo xawoon na yéeme waaye nag nañ xam ni Sénégal la Sénégal kii gañ waaye li may doon la mais yow yaakaaroon nga ñu nul. waaw yaa amee mbër yi ni nga nekkee mbër. xamoon yaakaaroon nga niil. waaw yaakaaroon naa niil parce que xam ma yaakaar niil mooy Lac de Guiers dafa doon mbër boo xam si dafa offensif te boo xamul rek pour nga bëre ak moom du yomb Boy Niang tamit xale la kon nag ni ma déggee gars yi wax li toppal ci ginnaawam du woon yoon muy sànjaafa combat am comme que yàlla loolu la leen sër jagleel nañ ko jëlee waaye nag di ñaanal li yooyu àjjuma yàlla may leen ndam ñu indi coupe bi soxla nañ ko loolu nag. jërëjëf jërëjëf waaw. waaw alors nan nga gisee combat bi dox ci diggante Lac de Guiers Boy waaw lu ma gisee lu dul làmb la rek xam nga noonu xam nga noonu la fa waroon demee quoi. waaw amoo ci déception en tant que en tant que mbër. waaw a ah, xam nga mbër yi moom bokkuñu quoi bokkuñu lu ñuy bëree waaw xam nga di leen féliciter ñoom ñaaru ñëpp. waaw noonu la fa li ñu bëree kontaan nga ci waaw wala déet. Ah? li ñu bëree kontaan nga ci waaw wala lamb la xam man mbër la kontaan ci waaw wala waaw man kontaan naa kontaanu ma kontaan naa kontaanu ma <laughs> la rek waaw.